Votre bulletin d'information communale, BIC. salaamaaleykum salam yéen waa journal BIC yéen ñi nga xamante ne bi ni yéen ñu faral di ñu seetaan ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di nuyu di leen wax rek euh, encore ñuy Féliciter. lion yi nga xamanteni bi ni wane nañu jappar wane nañu ak jom wane nañu ak fulla wane nañu ak fayda bravo les lions du Sénégal mën nañ ko wax les lions de la Teranga euh, ci ndam li nga xamante ne bi ni indil nañu ko bu yàggul ñu indilaat ñu beneen ndam ndam li mooy ñu qualifié coupe du monde gis nga fi mu ne mbégte fi am ci biir réew mi gis ngeen tamit aussi notre président son excellence le président de la république monsieur Macky Sall gis ngeen sorte bi mu def ak déclaration bi ci wane mbégte rek bi nga xamante ne bi ni am na ci biir Sénégal ki ñu ko indil mooy lions yi gaynde yi ñi ngi leen ciy féliciter di leen wax encore une fois bravo sagal ngeen nu sigil ngeen nu à travers le monde di ci wax rek ne Ismaïla Sarr na nga xam ndar yow lañu yaakaar ndar yaa leen di sagal Ismaïla Sarr ndar na nga xamante ni ñëpp sa ginnaaw di la supporter di la encouragé euh, di la wax ni rek foo mën a nekk rek na sa xel dal ñi ngi lay ñaanal bu baax a baax yow Ismaïla Sarr mi nga xamante ni bi ni yaay doomu ndar di ndar ndar bu mag bi ñu xam ko ci sa papa le grand sportif Abdoulaye Sar Nargat motax ñu lay féliciter encore une fois ci ndam li nga xamanteni bi ni sigil nga waataan mais sen journal bi sen journal bi bulletin d'information et communal toujours ni leen koy waxe rek sa su nek rek ngeen wara xamni dañ leen di indil ci de la commune concernant la commune sur le transport sur le commerce tay ñu leen ci indil ay waxtaan yo xamanteni bi ni ay njàmban ay yo xamanteni warna am ci dëkk bi muy équipe bi nga xamanteni bi ni mooy équipe municipale bi nga xamanteni bi ni bu yagu rek la leen falo ñu genn ci élection locale yi te gis ngeen ni Mansour Faye mo jëlat maire bi mais jëlat maire bi euh, jël ñi nga xamanteni bi ni ñom ñom ñom la yaakar ci compétence ñu doxal fi nga xamanteni bi maire tay ñu ngi ci garage bi ñu ngi ci garage Bango garage Bango nek na garage bo xamanteni ni garage bi dafa dé lutax garage bo xamanteni ni fu ne garage raw amna garage njaben amna garage Gandiol am na garage Ngay Ngay am na garage te garage bi muy garage su Bango ñu indil ko defal ko transporteur yi ñu war ci indi oto yi ci biir mais fu nekk ñu bëgg fa indi garage encombrement boobu moom la tey ki nga xamante ne bi nii mooy Jean Seck di adjoint au maire di président de la commission bi nga xamante ni moom lañ ko jox muy le commerce ak transport bi euh, ci loolu nag dana leen fi indil li nga xamante ne bi nii mooy Jean Seck dana indi ci yow waxtaan le président des transporteurs Euh, président wu commerce commerçant yi muy Cheikh Ndiaye ñoom ñëpp dana leen indil ay waxtaan ci ñoom indil leen ay waxtaan bi nga xamante ne di ngeen ko dégg yéen waa journal yéen suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan ma ànd ak sama euh, Mati maa ngi lay nuyu. waa Tons maa ngi lay fay. asalaamaaleykum waa Ndar ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di jox ñëpp seen wàccuwaay comme ni nga ko waxee rek ñu ngi félicité Lions yi di leen wax jaaraama.

ñun bu ñu daan jël oto garage banque la ñuy jëlee oto pour dem Ross Béthio léegi foo dem garage la moo tax affaire bi doy na waar daal nañ déclarer garage banque parce que mooy li gën. d'accord ci ay waxtaan nag danañ dugg ci biir mairie bi concernant la commune danañ dugg ci mairie bi indi li nga xamante ne bi nii moom mooy ay ay ay ay ay ay solution ay ay réponse yoo xamante ne bi nii danañ ko indi ñun journal bi ñu leen di indil xibaar yi nga xamante ne bi nii ñoo soxla concernant la commune surtout fii ci biir Ndar. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu techniciens yeeg ñëpp di nuyu DG bi rek ñu war a dugg ci biir rek ñëw indi leen ay résultat ñu indi leen ay solution indi leen li nga xamante ni bi ni concernant la réunion li nga xamante ni moom la ñu def léegi léegi léegi léegi léegi léegi ma ànd ak sama caméraman amu si ci kanam ñu waxtaan ak yéen bu baax a baax ñu ngi ci avenue Général de Gaulle bi nga xamante ni mooy avenue principal mi nekk ci diggu Ndar avenue Général de moom moo nekk ci euh, fi nga xamante ni mooy estade Victor stade Maître Babacar Sèye actuellement ñi nga xam dañ ko suspendre ñi ngi ci avenue Général de Gaulle bi nga xamante ni bi nii moo jàkkaarloo commissariat central de Saint-Louis ñi ngi ci avenue Général de bi nga xamante ni bi nii moo dend ak église Notre-Dame de Lourdes suñu mbokk catholique yi ñu leen di nuyu bu baax a baax ci karam bi ñuy waajal ñi ngi ci avenue Général de ci rond bi rond bi lu tax ñu indi leen ko tey mooy commercant yi ngeen di seen ci ginnaaw nga xamanteni bi ni fu ne lal nañ ko ci marchand ambulant yi les tabliers parce que tamit mënuñu mënuñu leen tuddee marchand ambulant sa marchand ambulant ay ambulant mais ñi ay tablier lañu yor occuper espace bi nit ñi di mujj obligé di dox ci tali bi loolu nak dafa naqadi ñi nga xamanteni ne bi ni ñom ñoy commerçants yi nga xamanteni ñom mhm. ñoom sen magasin di fay ay patente di fay ay impôt sur des locations yo xamanteni dafa xaw cher ñu koy fay te gisuñu njarte commission bobu nak moy commission bi nga xamanteni bi ni tay réunion bi dana len ci indil ay réponse yo xamantene par rapport ak Cheikh ndjay bi nga xam moy président commerçant commerçant yi moom dana ñew indi ci ay leeral li tax ñu wara saytu lolu war ko jàng war ko war ko jangat am jangat bo xamante taxaw set lu lay doon ci commerçant yi nga xamante ni ñoo tuddee seen bopp marchand ambulant ta yor ay tablier lolu nak mom la len bulletin d'information communale di len indil ci ay réponse comme ni ma leen ko waxé won ci transporteur gis ngeen garage gis ngeen tay fi nga xamanteni bi ni Moy anarchie bi fi am encombrement yoy yep nak nag danañ ci indi leral am bi ma ma ma ma di len ci wax rek ni adjoint au maire bi woote réunion bi tay moy Jean sec Jean sec suñu xarit xaritu bulletin d'information bi bi lolou lepp nak dana len ci indi ay leeral dana len ci indi ay waxtaan euh, la nouvelle correspondante bi nga xamante ne ni moy Mati Gueye mom la àndal tey ci liguey bi Mati ndax lolou c'est normal. waaw toos ce n'est pas normal lolou mo wax dëgg sa neex yàlla jaaduwul marchand ambulant yi du nee ma sax marchand ambulant parce que marchand ambulant day wati jaay ñoom dañuy lal si buntu stade tout ça ñi nga xam ne dañoo jël en charge jël seen magasin di louer pour man a liggéey pour mën a am xaalis yóbbu seen famille mënuñu am loolu à cent pour cent parce que sama genre ku war a jënd si biir marché bi lu yomb lu jafe da ngay génn si marchand ambulant jënd bu gën a moyen cher ñu ngi ñaan ñëpp autorités yi ñu jàppale leen bu baax te yàlla rek sax. loolu indi yuuxu bi sur les marchands ambulants sur les tabliers yi nga xamante ni ñoo occupé espace bi ba lépp loo xamante ni bii rek jàmbat nañ ko rek dana ci nekk bulletin d'information communal Bundar, ndar moo leen di indil tey li nga xamante bi nii mooy ay leral ak i réponse danañ dugg ci biir mairie bi hôtel de ville mairie sur les neuf domaines de compétence tay nak ñu ci gis ci ki nga xamanteni moy Jean Sec mom da dana leen indil ay waxtaan yo xamanteni ne danañ ci indi ay réponse fi ci biir dëkk bi nga xamanteni bi ni moy dekk mam kumba bal di dekk golbert diagne a tout suite inshallah okay, monsieur jean man dama bëggoon rek nga defal ma résumé concernant la réunion euh, ci état des lieux bi nga xamanteni bi ni am nga ko ak le transport ak surtout les commerçants nga defal ñu résumé bi rek li nga xamanteni bi ni mairie en tant qu'adjoint au maire ak les élus bi nga xamanteni yëkëti nañ ci cadre tamit tamit tamit ñu jëma xam rek naka lay fassiyene doxé inshallah

booy commencé 10 heures ba actuellement il est 16 heures te nit ñi demul dikku euh, demunu donc tok na pour sa importance réunion bi parce que c'est est Saint-Louis qui nous concerne te li si gën important bi gën importance mooy duñ ko def avec avec des élus les élus yooyu bàyyi seen lépp ñëw toog accompagnement te bu ma accompagner donc duñ fi tok kenn ku nekk ko nga fi maire et rôle maire boobu dafa mel ne le maire Mansour Faye moo fi toog te le maire Mansour Faye toogee c' est Saint-Louis bi fi Saint-Louis wuy nous ñu waxtaan un secteur de xam commerce et transport di sant ñëpp di gërëm pour innover pour xool le transport le désencombrement au niveau de Saint-Louis euh, l'insécurité les toilettes euh, dans les gares et les marchés Nous xool lañ ci indi nous nu mu gën a gaaw. dafa mel bañ bañ garage yu bare madame, maanaam garage su Gandiol garage Pal, Raw garage garage mais garage yooyu yëpp naka ngay def ak ñoom. non c'est que ñun maire yi amul ñuy bañ léegi Cheikh la ñu la parce que ñëpp njaboot gi la mais du ni ñi ñëwoon toog waxtaan ak maire ba maire teg leen place donc place boobu tant que bougé wul keneen amul droit defar benn place tant ñëwoon waxtaan parce que lépp muy waxtaan. ñu jublu koor ñu gis ni koor da gis ni avenue général de bi dafa am ay commerçant yuy lal ci biti comme ni ko ndaw si war réclamé léegi ñu gisoon ni am na fi ay jamono da leen doon def da nga leen maire bi dafa leen dàqoon maanaam déguerpissement boo xamante ni amoon na au

c'est pas négociable képp ku fa nekk dañ fay jógee. donc lan mooy sa kàddu gu mujj rek gannaaw bi nga xamante ne bii nii boobu léegi quatre heures de temps d'horloge ñu ngi toog boobu ba léegi lan mooy sa kàddu gu mujj. non sant ñëpp sant élu yi ma accompagné tamit bàyyi seen lépp surtout na li si ay jigéen lañu donc tey jii ñu waroon defar defar seen jëkkër yi tout cela donc mais ndar jaral leen ka donc ñuy sant ñëpp gërëm ñëpp. Mayib Seck Jean moo nekk noonu moom lañ doon waxtaanal tey gis ngeen réunion bi bi nga xamante ne bii nii def na ko Jean Seck. Euh, président commission bi nga xamante ni moo yor transport ak commerçant yi nga xamante ni ñoom ñoo yor daanaka Sénégal boo xoolee transport ak commerce ñoom ñoo yor Sénégal ci ay points yu bëri yoo xamante ni ñëw nañ fi am nañu fi yëkkati ay kàddu concernant les les le commerce aussi gis nga ni yëkkati fi kàddu loolu nag mu doon fierté boo xam ne ak mbégte boo xamante lii ñu fi tënk ak lii ñu fi xaatim incha allah bu fekkee ne doxal nañ ko noonu danañ ci gis ndam bu baax a baax maa ngi sama la correspondante bi nga xamante ne bi nii c'est nouvelle moo ngi nii ma leen koy présenté yéen waa journal bi di leen ko présenté yéen waa dakaar di ko présenté Khalifa di ko présenté ñëpp euh, Mati Gueye ah, la nouvelle euh, de journal bi Mati noo gisee réunion bi tey. Ah, réunion bi neex na noo gisee journal bi. journal bi ça va macha allah alhamdulilah. engagement bi jël ko engagement bi baax na nouvelle yeneen nouvelle daal yi nga xam ne mi ngi journal bi mi ngi koy indi incha allah. ci biir commune ci biir commune. ah ak département bi. dafa mel ni lan lay xaar ci ay émission dañuy indi seen kii macha allah. sa mbokku jigéen ñi sa mbokku jigéen ñi. commerçant yi. Ah, ah. chauffeur yi ñëpp nañ ma xaar incha allah. effet ñuy jaay effet toilette ñuy jaay effet toilette. maa ngi ñëw ak ci émission yu neex yu am solo yi xam ne ñëpp dañ leen mën a xam. émission bees bi tudd. émission bees bi ngi tudd Jigéen Feeñ Takkusaanu Ndar Takkusaanu Ndar boo ko waxee lépp mi ngi biir mi ngi ëmb lépp ci biir incha allah. DG Mati Gueye ngi noonu Khalifa Mati Gueye ngi noonu dana tàng dana métti yéen waa journal bi ñu ngi leen di jox daje beneen yoon ci biir commune ak lépp nag.